dëkk bu sell bile di Touba di tànneefu jëwriñ ki ñu dénk wàllum urbanisme ngir amal nag ñaareeli édition bi ñu jagleel wàllum set setal gi ñu koy dippee setal sunu réew di naal ak xalaat bu bawoo ci njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye bëgg-bëgg gi nag bokk ci fexe ba askan bi bokk ci li defar seenub réew fii nag ci Touba askan bi wuy si nañu jëwriñ gi ci bés bi. journée set setal bii nga xam ne euh, président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son ñoo ko naal ba noppi santuñu ñu jege ci population yi liñ ci jublu mooy nanu fexe ba gox goxaat yi askan yi ak quartier yi jël mbir mi def ko seen yëfi bopp ndax buñ ko defee seen yëfi bopp lu lu benn nit ñaar ñoo ko ko mën lu ab gouvernement di mën aw askan na ko ko dàq. activité yi nag ñu ngi ko tàmbalee ci ndaamaatu ci foofu sax ci la jëwrin gi xamalee ni gox boobu yitte woon na taxawaay gi nga xam ne amal nañu ko ci bokk ci li koy gën a firndeel nag mbënd mi nga xam ne dañu ko fay nemmeeku. Euh, seet seetal bi dañ ko def ci cadre question inondation euh, bi passé thème boobu la woon tey itam boobu lañ jëlaat. liñ ci jublu mooy xam nañ ne bëri na buñ ino bu waxee bu ñu waxee inondation rek soit nit ñee dëkk fu ñu warul dëkk wala infrastructure yi manqué wala nit ñi daal di fàtte canalisation yi généralement ñett yooyu la te ndaamaatu ku ko xam xam ne am nañ jafe-jafe inondation bi ngeen bi ñu yegsee rek dañu dem xool canal boo xam ne tey ñu ngi koy jéem a sekki pour que ndox mi mën a jàll looloo ko looloo wund tey ñu ñëw fii. ca marché ocas jëwrin gi délégué bu marché bi moom moo ko fa dalal délégué bi nag jot na xamal jëwrin gi jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel ci wàll boobu. man wan naa ko lieu yi nga xam ne li ñu naqare ci marché beeg yëpp wan naa ko ci des nag moom ci moom la. ci marché bi la ñi ñi ci marché bi benn commencé commencé nañ ci maanaam regard yi ni mu mel nii. nga xam ne amul ci couvert amul dara ba pare xóot bu xootee nag bu xóotee nag nit ñi ni ñuy def mooy dañuy fexe nañ ko defee ba mën a maase ba jàll nit ñi boo gisee ñu nekk ci kaw mbedd mi di jaay dañoo amul ci lu ñu jàpp nan waxtaan wax dëgg ca la bu ñu nekkee ci kaw mbedd mi di jaay amuñu fu ñu jëm amuñu lu ñu def la magum jëm nag kenn du ko du ko cornet ne beñe rek te ko fi barab dañ leen di bàyyi léegi nag dañ leen di wutal ay barab yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu man caa kii nekk di liggéey waaye su suñu bàyyee rek